di siyaare ñëpp ci bisu Maolana Cheikh Ibrahim bi parce que Baye weeru yonent bi mooy weeram dafa bëgg yonent bi salaa salaam ba nga xam ne bii lépp yonent bi mooy lépp Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye li ko waral nag mooy dafa doon yonent bi salaa salaam dafa doon yonent bi salaa salaam doon Cheikh Tidiane Chérif radiyallaahu taala ba pare nekk xut bu jamono ñëw pour sauver jaami yàlla yi. moo tax maa ngi ndokkeel julliti àddina bi yëpp di ndokkeel umma islam waaye di ndokkeel mboolem taale Baye di wax ne ñu ngi tatagal ñëpp. di sargal ñëpp di dalal ñëpp di wax ne ñëpp ne ñëw ci jàmm gàmmu ci jàmm delluwaat ci jàmm te ànd ak ngërëmal yàlla ak ngërëmal moo Cheikh Ibrahima Niass Baye Radiatar ak ngërëmal yonent bi salaa salaam di ñaanal yàlla umma islam bi na yàlla dimbale ko te dooleel ko jullite àddina bi yëpp yal na yàlla may leen dam daay man toujours ñuy am dam sax parce que diina islam mooy diina ji gën diina islam mooy diina bi nga xam ne bii mooy diina rawkaay li moom la suñu yonent bi salaa salaam indi kon maa ngi leen di ndokkeel yéen ñi nga xam ne bii ay média ngeen tam di liggéey ci Euh, ci diine ji di liggéey ci tarixa yi di liggéey ci mboolem koo xam ne baat laay laa ila laa ngi koy yéen a ngi koy tàllal seen micro di liggéey te yàlla rek tax da nekk ay ndaw yal yàlla def leen mag mu barke na yàlla barkeel seen tele bii nii yal na yàlla barkeel seen télé yéen ñëpp parce que média moom li nga xam ne bii na tey ña nekk tey ci bitim réew yéen yéen leen koy jox yéen a leen koy jàllale loolu mission la boo xam ne mission bu am doole la kon yéen a ngi liggéey ci mission yàlla bi yal na yàlla fayanteeg yéen seen télé yi itam yal na ko yàlla tasaare ci àddina bi yëpp comme ni mu tasaaree euh, diina islam yal na ko yàlla tasaaree seen télévision yi te barkeel seen jiit yi ci jiitu ba ci kaw ba nga xam ne bii na ñoo boot ci seen gannaaw yëpp yan na yàlla barkeel leen ñu nekk ci technique bi ñu nekk ci caméra yi ak ñi leen di jàppale yëpp yal na yàlla barkeel leen ci barkeentu salaa salaam barke Cheikh Tidiane Sarif radiyallaahu barke sama baay Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñooñu ndeysaan ndaw ñi léegi ndeysaan dañoo am xel ndax Mawlana Cheikh Ibrahim ci jamono daan na wax ne bu leen doon ay dof ba ku tourné nax leen parce que sëriñ euh, ak buur duut benn taalibe tamit ak dag du huñ benn sëriñ mooy ki nga xam ne dafa pare ci boppam te xam yoonu yàlla te xam yàlla taalibe mooy ki xamut yoon wi te bëgg a xam yoon wi te kooku fa mu jokk ci sëriñ dégg nga ndaw ñi nag léegi dañoo yeewu duñ gis n'importe kii rek ñu topp la moo tax Maolana Cheikh Ibrahim fi mu toll nii dafa pays bi dafa bëri ay ndaw parce que ndaw yëpp ay intellectuel lañ te xam nañ ne dégg nga euh, yàlla duhut loo xamante ne nii dégg nga luñ dul xam la duhut loo xam ne nii luñ dul gis la dégg nga dañ koy gis jaxaran dañ koy xam jaxaran te loolu Cheikh Ibrahim Niass bi mu ñëwee fekk na fi julli fekk na fi or fekk na fi xasaka fekk na fi lu ne waaye fekku fi nag dégg nga jaam bi mën a ràññee boromam. kon dëgg-dëgg ñun côté côté ndaw gi foofu dañuy sant yàlla yëg-yëg bi ñu am mooy jërëjëfe Maulana Cheikh Ibrahim jërëjëfee Maulana Cheikh Ibrahim ci biir foofu ba tey ma tënkal la rek xam nga tarixa tijaan da ngay gis ne bu yàlla waxee ne firu ilalaay daw leen jëm ci man askuru ni askurukum tudd leen ma ma tudd leen nga gis ne tarixa tijaan euh, soo jullee fajar dégg nga ak waxtu woowu ni mu jafee da nga toog laasim loo fay wax astaghfirullah laa ilaha illallah salaatu ala nabi boo ca jógee boo julee tàkkusaan nga baamtuwaat ko boo ca julee boo jógee timis nga def sa wasifa astaghfirullah alazim alazi laa ilaha illa wal xayul xayum laa ilaha illa allah dégg nga salaatu ala salaatu ala nabi teg ca jawratul kamal yowmul jumaa diggante tàkkusaan ba ba diggante tàkkusaan ba timis yaa ngi naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha bu yàlla rusu doon jaami yàlla yi kon àdduna bi tukki na bu yàgg bu yàlla rusu doon jaamu yàlla yi di wax laa ilaha illa allah àdduna tukki na bu yàgg kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax jii may wax tey ndaw yi pays képp koo xamante ne nii taxaw nga fi rek da nga wax wax ju gën a fasaali wax ju gën a neex li ndax yëg-yëg am seen xol bi moom moo neex. su ma kàddu gu mujj fekk ngeen ma kër Imam Hassan euh, ma ànd ak daayira Koutal séeréer muy daayira boo xamante ne macha allah yàgg naa àndoog ñoom ñëw ci kër Imam Hassan Cissé dëgg tey ngeen fekk ñu fekkante fa ma xaw a tardé sax. waroon naa faa wéy benn wéy boo xam ne man su ma jëm bopp maa ko taalifale Imam Hassan Cissé Eh, su fekkee may ngeen ma 10 minutes rek ma dugal ko ci incha allah ñu tàggatooyee noonu hawayool Tijani weyaayul Cheikhu Tijani imam Asani waa Cheikhu Tijani Sidi Barham ain't going sit down to praise you, Imam Hassan. Let's go with past time, Imam Hassan. You are past, you are future. Sidi Barham, my Imam Hassan, look how he is preaching. Nobody without him can like him in this country. Sidi Barham, my the preaching of the Imam shouldn't be delayed. You should be attentive. The preaching of the Imam is our light. Sidi Barham, my Imam Hassan, the of the Prophet. Let us go to him in between Rasulillahi Sidi Barhama Imam Hassan Sidor of the Sheikh Tijan Let go to him in between Sheikh Tijan Sidi Barhama Imam Hassan Sidor of Barhama Let us go to him, we'll meet with him in Kasungbai. Sidi Barham, my okay, now look how the Americans love Imam Hassan. We the people, and now what are we Imam Hassan will for ready for him. Sidi Barham, my mother Fatizara, sees the mother of Imam Hassan. Now what do you think about? Fatimata the daughter of the Prophet, Sidi Barhamai Serin Aliu, our father of the Imam Hassan. Now what do you think about Aliu King, you the Prophet? Sidi Barhamai Minka, our father, our grandfather of the Imam Hassan. Now what do you think about Muhammad, our Prophet? Sidi Barhamai to make rabbit frightened doesn't make, to rabbit to don't disturb by you as the unbelievers. Sidi Barhamai, salam alayka yantijani. na Seexu Tijaan imaam Asan yaa di Seexu Tijaan Seydi Barham imam Asan na muy xutba kenn ku moom du ko xutba ci biir pey bi Seydi Barham may xutba imam waruñ koy tardé dañoo war di teew xutba imam moo di suñ leer Seydi Barham may imam asal mooy buntab yonon nañ leen jaar si moom danañ dajeeg rasulillahi Seydi Barham may imam asal mooy buntab Seexu Tijaan nañ leen jaar si moom danañ dajeeg Seexu Tijaan Seydi Barham may imam asal mooy buntab Barhama nañ leen jaar si moom danañ dajeeg bin ke suñ bàyyi Seydi Barhamay xolal américain yi niñ bëggee imam Hassan ñun waa pay be duñu xaar ci jeex ci imam Seydi Barhamay yaa Faati Zara mooy yaayu imam Hassan lu ngeen xaatir ci Faatumata doomu yoonun Seydi Barhamay Serigne Aliou mooy baayu imam Hassan lu ngeen xaatir ci Aliou sahaba yoonun ba Seydi Barhamay min ke suñ baay mooy maamu imam Hassan lu ngeen ci Muhammadu suñu yoonun may xaftal lëg taxut lëga matte bu leen tànqal baay yàgg ngeen fi duhuñ enriif sidi barham may sant leen barhama di koroy tey xam ne amul maas aboori jaal moo di suñ baay sidi barham may sumanam pon arab doon ku fasa kon ma wax ci baay lu benn yaram mënta korisé Seydi Barham may waaye ma wax olof ba ñu xam ne Cheikh Ibrahim moo di mbër mu kenn dul daan Seydi Barham may mbër mi hub la bi soo daan kooku moo di baay moo xam le yàlla xam le yoonun Seydi Barham may kaasu leeri baraama di servir ku ca naan ba mandi dootoo fàtte yàlla maa heen Seydi Barham may bahrul buhoori ñas ku fi mandi ci yow la naane yow lañ dënk kaasu leeri Seydi Barham may gumba guñ tooñ ba ñës ba mu xoole sa xaq sant ko war watul jikoy purax baaxul Seydi Barham may jikoy purax dafay fay xaal dafay wàññi lër te sa mën na lay dab Seydi Barhamay ku fi Barhama defar ba nga xam ràññee nga naan yaa ko raw rekee ku moo la dab gëm leen Seydi Barhamay kaalahul nga agali faas ñëpp dar lay sikar bum la taxa oote toppal Seydi Barhamay mission bi yëpp mu si gën a gaaw dox nañ leen soobu waay say ruhamu dayoo dox leen Seydi Barhama Cheikh Tijaani na Tijaani Tijaani Barhama qadri mi dar razi